parce que da nga jékki-jékki nga wax ni que amatoo contrainte morale pour soutenir le président Macky Sall n'est-ce pas. waxuma loolu. ah la la presse bi relaté. binduñ loolu aussi c'est normal war ngeen di gëstu ba xam lu ñu bind li ma wax. ñett yoon gëstu gis ni que. non mosuma wax yoon laa wax loolu. waaw li gën a yomb kay mooy fa wax ji jibee mhm. nga teg fa sa nopp pour mën a dégg. la léegi leeral lañ ñu ban. non leer dama koy baamtuwaat rek. <laughs> li ma Adja laajoon uh-huh. léegi ma ko ciy nettali sama digganteeg président Blade. Uh-huh. ci laa doon nettali benn journaliste bu ma laajoon yàgg na. ne waaye ak li nga mel ak say compétence ak réew mi fi mu toll situation difficile. Uh-huh. buñ toogoon yow ne la tey président Macky Sall daf la soxla pour nga nekk par exemple membre du gouvernement. est-ce que da nga nangu. ma expliqué ko fi ma jaar président Blade. wan ko ne ko amatuma contrainte morale vis-à-vis du président Abdoulaye Wade et de son fils pour que président la République mhm. bu ma defalee offre ma revisité ko hmm. loolu mooy le principe mais loolu tekkiwul d'abord président daf ma defal offre tekkiwul ne danaa ko nangu mais amatuma benn contrainte pour wax déedéet alors que bu njëkk bu ma ko defaloon dama mhm. naan ko déedéet mhm. systématiquement sans réfléchir oui. fi ñu toll dama bëgg reprendre sama liberté d'analyse en mais pour xool ndax lii situation politique jur jaral na ma man ma sóob ci sama loxo pour que li ma yaakaar ne war naa ko mën a defal sama askan ma defal ko sama askan Sénégal rek moo tax may yëngatu démb ça fait 39 ans avec le président Blade j'ai fait un an avec la Ligue démocratique j'ai fait quelques mois j'allais dire sinon un an avec Cheikh Anta mais musuma nekk militant ci parti yooyu waaye musoon na leen gëm ndax dañ gëme woon seen réew nationaliste. kon mag bu ma tollee fii tey amoon âge amatuma di changer li ma gëm sama gëm-gëm dama koy continuer ku bëgg ànd ak man il faut nga nangu li ma gëm. Mm-hmm. aussi simple que sax nan euh, foofu laay ñëwee ci point boobu sax en fait li nga wax léegi nii euh, parce que dama bëgg a xam yan relation nga am ak euh, Karim parce que d'après ce que je sais ce que j'ai vu. que bi nga feebaree moom moo la fayal say frais médicaux yëpp fale ca Qatar. pas du tout <laughs> ah non non non attends <laughs> attendez d'abord man j'étais pas malade. ah loolu la ñu wax. oui. non dafa demoon pour def check-up. non mën naa leeral lépp. waaw nañ leeral kon comme da nga bëggul la xam. comme dañ laa informé. dañ ma wax dañ ma ñëw ba xam informé rek <laughs> xam nga dégg naa sax lu bari dañ koy wax. waaw. Euh, man sequma Karim Wade am ak nangu. Mhm. seq ko sax ak papam. dama soxla nangam ma dimbale ma. Babacar am ma nangu loolu sequma ko ak papa mboxuma Karim Wade. c'est son père moo ma woo na def ça va naka sa arthrose yi xam nga arthrose kenn du ko faj. ma ne ko temps yi de mu ngi may sonal. mu ne waaye yow fii centre bu gën a mag ci àddina bi fii la nekk ñoom ñooy faj footballeur bu ñu dammee. ñooy def lii mhm. centre xaw ma lan. de mënoo fi ñëw comme ça nga ñëw def fii ñu faj la. Mhm. ma ne ko président y' a pas loolu mun naa ko y' a pas de problème mu ne sax mun naa wax Karim mu wutal leen ci seen ci autorité fii pour nga mun ñëw ma ne ko y' a pas de mu wax ma leneen. lam taxoon mu woo ma du man sama wér gu yaram li taxoon mu woo ma leneen la ma Madické Niang taxoon mu woo man xam naa si dara. Mhm. <laughs> ñu wax loolu ba ma fetee boor. Mhm. ma toog ñu yónnee ma sama visa sama fille. Mhm. billet bi noonu lañ ma ko envoyé aussi damay jàpp ne bu la euh, Ablaye Wade invité bu la Karim Wade jëndee paas nañu doxante ñoom ñaar man xaw ma nu mu demee. Mhm. donte sax bu ko Karim Wade jëndee je pense que euh, jamono boobu ñàkkul li leen bëggoon ñoom ma dem Qatar c'était moyen ma def check-up foofu te xam nga check-up boo foo ko mënta def check-up du côté 1000 euros check-up <laughs> surtout seet ndax say rein yi ndax euh, ay yax ak ay yooyu mm-hmm. man je sais pas aw ma maladie cancer bu touche du bois aw ma yeneen bagage yooyu mm-hmm. waaye arthrose moom maa ngi ak moom loolu nag euh, du ñàkk ndax peut li may magale tax mm-hmm. euh, damay yàpp ne fayal ma check maanaam fay euh, parce que man centre ba xaw ma leen. Mhm. man dañ ma wax da ngay dem ci docteur Nangam ma dem ci docteur Nangam ñu boole ma ak benn nit mu yóbbu ma fa ma dem def sama analyse analyse yi ñu ngi ko envoyé ci sama email bi ma ñibbi si Sénégal. Mhm. mais gis nga sama eh, nekk nekk Qatar li ci ëppoon soxla li ci ëppoon solo li ma ci xam. Mhm. bi ma ñibbisee laa ne euh, dañ ma exfiltré. kon en réalité du loolu moo la fa yóbbu. exfiltré parce que booba mën naa la jox tuuti rek. Mm-hmm. lu ndaw pour nga comprendre ne dañuy exfiltré. Mm-hmm. dañu wax président ne ko Babacar Gaye mooy euh, jàppale Madické Niang pour mu nekk candidat plan B. Mm. xam naa ñu ne Babacar gay biir Sénégal c'est un danger dañ ko génne Sénégal yóbbu ko bitim <laughs> ma def fa fukki fan le temps que affaire bi fii am nu ma loolu laa ci comprendre daal mais même bu nekkoon mhm. même bu nekkoon à supposer que euh, Karim Wade fayal na ma maanaam sama check-up euh, foofu à Qatar mhm. mais man mérité naa lu ëpp loolu ci mhm. doomu Abdoulaye Wade c'est ndax man li ma defal baayam moom mënalu ko ko bu fekkee ne tey am na et puis dafa am alal ñu mu mais temps mieux pour lui mais franchement politique du ànd ak nit pour mu defal ma ñaari yoon laa démissionné cabinet papam mais yéen a ngi déggante. non. amatul ne benn. depuis Qatar.